Abdoulaye Mamadou Guissé ñu ngi lay nuyu di la dalal. Mhm. nga jiite observatoire métier de la musique et des arts ñu gën ko xamee ci turu OMART tey mhm. ñuy wax ci euh, secteur musique euh, gis nañ mhm. ne mbas mi sonaloon na ko euh, tey ji mbir yi gën a yokk activité maanaam li desoon ci yaakaar pour ñu jógaat defaraat seen santé financière mu mel ni dafa néew jamono ji ak cas yi ñuy gën a gis ñu yokk tey ji ban lecture nga ciy def waaw madame maa ngi d'abord di la baalu àq si si bi di la euh, baalu àq Sénégal yëpp euh, di wax ne dañuy Séné adduna bi moo moo moo nekk ci euh, waxtu boo xam ne ku njëkk yuuxu rek da ragal mhm. ndax Covid bi adduna bi yëpp la mais nag ñun tey dëkk africain yi amuñu lu dul suñu culture amuñu sulul suñu cosaan suñu aada te loolu tey moom moom mooy mooy li nga xam ne tey mooy dundal ñun moo ñu dundal ñun suñu économie mm-hmm. mais tey jii gis nañu am na soirée yu bëri ak manifestation culturelle ba ci làmb yi sax dégg naa ñu ngi koy waajee tëj te ma gis ne loolu dadul loo xam ne yoon la parce que virus euh, comme ni ma ko waxee sànq Japon sànni nañ fa bomb Hiroshima ak Nagasaki te teewul Japon tey moom mooy première puissance mondial maanaam natt bu ñëwee mbas bu ñëwee da ngay xool nooy dund ak mbas mi noo koy dundee nooy dund ak mbas mais boo demee tëju maanaam xaru parce que da ngay tëju ba dee yàgg sa njabo doo leen lekk doo leen naan donc man je pense qu'il est hors de question que manifestation culturelle activité culturelle yi nga xam ne tey moo tax artistes yi di dund di lekk di naan ñu ñu arrêté ko mais nag mhm. loolu su ma ko waxee damay firndeel rek ne dafa laaj tamit ku nekk jël responsabilité am mooy nguur gi mhm. jël moyens yi jox kër gu nekk vaccin fekk nit ñi ci hôpitaux yi ci ci stade yi ci ci ci ci terrain de football yi mhm. di vacciner nit ni di leen jox masque ñuy takk di leen jox gel ñuy laal seen yaram loolu buñ ko defee euh, respecter normes yi ak li tubaab bi di wax tey pass pass covid mhm. pass covid bi maanaam boo respecté lool yëpp vacciné wu loolu yëpp dañ la koy jox kayit la nga téye ko mhm. foo dem mun a dugg ak moom comme ni nga yore sa carte d'identité waa comme carnet de santé loolu bu ñu ko defee léegi sax tubaab bi ñoom si sa téléphone portable lañ ko def ak code QR. Mhm. boo xam ne boo ñëwee dañ koy xool rek takk laal xam ne na vacciné wu nga. Mhm. ñu bàyyi la nga dugg ak masque yeeg yooyu. je pense que loolu nguur état bu am rek bu bu responsable loolu la war a def mais pas euh, ñëw bëgg jël économie normal ko ndax mbas kon ñaari mbas mooy ñëw. mooy mbas bi mooy muy Covid bi ak mbasu économie. te ñaar yooyu boo ko mooy réew boobu réew boobu nërmeelu na. Mhm. balaa ñoo egg foofu xam naa euh, dina jël diir. en mm. attendant yéen ñii acteur culturels yi soxla ngeen fu ngeen liggéeyee ngir liggéey seen koom-koom euh, tey nan ngeen mën a def euh, selon yow pour ngeen adapté wu ci situation bi ndax gis nañ fi xarale yu yees yi. waaw mais xarale yu yees yi sax madame gis nga xarale yu yees yi sax ba tey jii ñun tolluguñu niveau boobu. maanaam ni mu lay joxee xaalis man li ma lay wax nii dama ci am preuve mhm. tey artistes yi gën a mag ci Sénégal artistes yi gën a mag tey da ngay jël un artiste plasticien parce que Sénégal dañuy defe ne xarale yi ci pour musiciens yi rek la mais tey ñi théâtre tey ñi ñi peintre yaa ngi fi taalifkat yaa ngi fi moo ñeneen ñu ngi fi mais ñooñu tey mënuñu bénéficier wu ci xarale yi mhm. te xarale yi aussi am na lu ñu tubaab di wax naan maanaam protéger wuñu créateurs yi da ngay gis ñu naan la ay un million de vues pour nga mën a am benn trois cent mille mais madame loolu exploité artistes yi la te loolu sax loolu sax o martir dañ ci taxaw parce que da du loo xam ne du yoon ci réew un million de vues pour nga mun a am benn trois cent mille boo amee neuf Euh, euh, neuf cent quatre vingt dix neuf vues sax loo am te yow euh, plate kii boobu plateforme boobu mu ngi exploité sa œuvre donc xarale bi dafa am loo xam ne yéen seen boppu yéen journalistes yi da ngeen ko war a dénoncer parce que dafa war a nekk d'actualité maanaam dañuy YouTube ak yooyu Facebook ak Twitter ñooñu dañuy exploiter créateurs yi te il est temps que ngeen taxaw jàppale ñu kuréel mel ne Omarta ak say wi ñu taxaw ne loolu du fi amee fii Sénégal donc Euh, loolu da lay firndeel rek tey mbas mi ñetti mbas la mbasu mbas mi ci boppam ak mbasu économie bi ak mbas bi ñuy exploité artistes yi donc tey xarale yu bees yi mënul apporter dara ba mu buy apporter ñaari artiste wala benn wala ñett lay lay lay lay dimbali mais du du du ko wees tey boo xoolee un Wally Seck wala Youssou wala kenn moom ngay gis mu mu am ay un million de à part loolu yenn théâtre yi sew yu siiw yi maîtresse d'un homme wala infidèle wala dem jeex na est-ce que loolu ñoom dañ ciy mën a dund ñoom ci ay ay deux millions ay un million ñu leen di jox par par par par par par par par par kii donc donc donc autant euh, ñun déplorons dañuy déplorer situation boobu aussi bu weesoo loolu ñu wax ci euh, li nga xam ne euh, ñaari fan rek ko desee mu am weer muy ba ñu reconduire euh, Ngoné Ndour ci boppu société sénégalaise de droits d'auteur et droits voisins muy SODAV ñu gisoon ne ca assemblée générale bi benn candidature moo fa amoon lu xew yéen say wi ak OMART fan ngeen nekkoon. waaw assemblée générale boobu amoon ñun defe nañu ne Sénégal yëpp xam nañu suñu position ñun OMART ak say te suñu position bougé wul centimètre parce que liñ doon kaas juróomi at ba tey ji mënuñu yeewu suba teel wax ne kaasatuñ ko mënut a nekk mhm. léegi nag dafa am lu xew ba xew mooy assemblée générale boobu am na ñun laaju soxlawul ñu fay dem parce que ñun dañu gis ne ñun loolu intéressé wu ñun ndax société bi dafa jeex dafa kadit société bu kadit nag dañoo gisoon ne 7 euh, mars la jeex 7 mars 2016 7 mars 2021 société bi jeex na mhm. dañoo gisoon nañu def assemblée générale ayant droit yi moyen ñu am carte ñu amul carte yëpp ñu dajale leen képp kuy créateur kuy kuy kuy xarale kuy yëngatu ci xarale yi mm-hmm. ñu dajale ñu ñu waxtaan xool nan lu bees la ñu war a mën a teg wala nan lañu mun a changé mbir mi mais par ñëw pour ay élire ay nit ñun loolu lañu gisoon ne loolu munta mun na bañ a nekk mm-hmm. léegi nag bi loolu amee ñun demuñu omarte demul say bi demul parce que loolu ñun suñu responsabilité ñun ñoo wax suñu membre bu leen dem donc demuñu te je pense que ñun histoire dinañ jox raison lu tax demuñu bu loolu weesoo nag euh, euh, ñu baroon tenir ay assises omarte ak say wi waa présidence de la république ci boppam xamal ni wooñu waxtaan que mbas dafa am ci réew mi coow li bëri na dañoo bëgg ñu toog ñu waxtaan ñu uti ay solution pour SODAV tegu ci yoon. Mhm. culture bi tegu ci yoon. ci biir loolu nag je pense que njiitu réew bu la woowe ne la dañoo bëgg ngeen lii ñu ut si solution te ñu leer ne moom mooy moo yore càggal guy gi wax nañu lu ñuy wax dina dina indi ay changement mais ñun tamit dañuy def su dul toog di ko déglu. ci waxtu boobu lañ nekk ni si ci minute yooyu lañ nekk nii te waxtu bi ma lay wax ni bés bu ne ñu ngi rencontré autorités yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñoo ŋànk culture ci président de la république pour ñu xool yan démarche def pour situation bi changer mu meloon ni dafa am ay doléance yi ngeen yëkkati woon laata ngeen di toog di xaar di déglu euh, ñi nga xam ne ñooy autorités yi muy ay assemblée yeneen assemblée euh, générale fu ngeen ci toll. waaw assemblée générale boobu laala la wax madame dama ne xam nga assemblée générale boobu ñun dañ ci taxawoon. Hmm. pour que def assise de la culture maanaam euh, muy SODAV muy lépp loo xam ne aussi xam nañ ne culture bi culture bi du SODAV kese. Hmm. culture bi tey infrastructure culturelle majeure yu nekk ci Sénégal tey contenu culturel yi am tey statut de l'artiste yooyu yëpp nekk loo xam ne Sénégalais dañuy foog ne Omart ak Seyou dañuy kaas pour Sodav kese mais ñun li ñuy kaas dafa li doléance suñu doléance dafa bëri. gën na ko yaatu. gën na ko yaatu parce que nag xam nga boo ne Sodav na euh, ñu bëri ñu foog ne ñun ak Ngóone Ndour la mais alors que du Ngóone tey Ngóone Ndour bu fa newul woon keneen nekk fa. Mhm. nit ñi li ñuy kaas nii dañ koy continuer di kaas tant loolu nga fa dañ koy mais culture bi aussi dafa am yeneen fànn yoo xam ne tey au niveau du ministère de la culture mhm. yoo xam ne doxul culture bi tey yen xam ngeen ne acteurs culturel yi culture Sénégal doxul yéen xam ngeen ko nañu waxante dëgg yàlla tax tey ki fi dàq way si Sénégal wala ki fi gën a mën a dessiner wala ki fi gën a nekk poète wala ki fi gën a mën a jouer théâtre mhm. soo ko rombee da koy bëgg a yërëm mais loolu la nag ñun Omar ak say bi loolu la ñu bëgg mu deñ mu deñ Sénégal parce que Europe tey Europe un artiste boo dajeeg européen un en Europe nga dajeeg artiste. Mhm. mais moo gën a am valeur président de la république. moo ko ëpp xaalis moo ko ëpp personnalité moo ko ëpp lépp mais Sénégal c'est malheureusement pays de culture la mais malheureusement mais misérabilité la ñuy incarner dans ce pays. la culture donc moo tax ñun Omart ak say bi ñuy xeex loolu ñu gis na nag au niveau de la présidence ñu ngi def liggéey bu am solo. Mhm. donc pour que euh, jàmm am ci culture bi ñëpp toog waxtaan te loolu moo tax ñun aussi euh, ñu ñu ñu àcc ñu àcc nu mu tëddee ñu àcc gànnaay yi. Mhm. xaar xool parce que tamit gànnaay yi soo gisee ñu génne woon ko pour jàmm culture bi nekk si jàmm la mais bu ñu gisee solution ay ñun ñoo xam ne président de la république moo leen yabal nañ ñu wax ak mhm. ñu ut solution bu ko gisee aussi dañuy dañuy naan tekk ba bàyyi ba xool fu fu wànte mujjee gëtam wax ci leneen <clears throat> euh, nga jiite omar te muy kuréel gi nga xam ne yaatu na yëngu ci wàllum aada ak euh, cosaan muy culture euh, tey ñu wax ci cinéma. Euh, ñu gis ne téléfilm Sénégal mu ngi ciy yëngu daanaka daal euh, teg na ci tànkam euh, ba au niveau Afrique gis nga taxawaayam waaye gis nañ ne tamit suñu téléfilm yi ñuy réaliser si suñu réew liñ leen di critiquer bari na yenn ci série yi nga xam ne faar la tey jii ban jàngat nga ci def. waaw bon man li may njëkk a hmm. mooy. censure censure baaxul ci réew. ba lan nga woowee censure. censure mooy un créateur joué filmam wala taalifkat bind taalifam wala bindkat livre bind livre am nga ne ko li nga bind nii dindi ko wala nga ne doo ko fi waxee ci réew mi loolu loolu création dans tous les pays du monde pays buy wax démocratie la. amu fa. waaye ba fii ñu egg nii euh, gisaguma fu CNRA censuré benn. Euh, non CNRA CNRA mu ngi censuré mu ngi def mu ngi def sax ay mesures yoo xam ne barrières yoo xam ne tey am na téléfilm yoo xam ne yu mel ni infidèle mais dañ naan la moins de seize ans te minuit lañ koy teg donc donc donc moins de seize ans loolu dañ ko war a respecté mhm. mais maanaam nag téléfilm yooyu aussi kenn waru ko teg heure yi nga xam ne xale yi dañuy seetaan télé. mais nag ci loolu bi loolu amee ñun dañu gis ne CNRA defu ko mais tey ONG Jamra gis ñu ne moom daanaka taxawaayam taxawaayu censure la taxaw maanaam euh, ku lu tëb rek mu ne ma censuré euh, œuvre sénégalaise yi œuvre sénégalaise yi mais man ci waxtu boobu Jamra mhm. dafa am lu ma jaaxal ci démarche Jamra mooy euh, novelas yi cinq heures lañ koy seetaan ci kër yi kër yëpp koy seetaan novelas yi foonante bi euh, tëdd ak jabaru jàmbur yi. da sa yaram lay commencé sax daanaka heure mikke yeeg yooyu. waaw. Mhm. Euh, voilà donc euh, film novel novelas yi. Mhm. nigériens yi. ak nigérien yi novelas yi mais lu ne nga ci gis te ñu ngi daw ci kër yi chaque guddeeg bëccëg léegi léegi boobu ana jamra ana jamra mais mais mais film télé bi télé duggee si ab si àdduna ba léegi surtout Sénégal bii ñëpp gis nañu film tubaab bi dangay toogal sa yaay ak sa papa sax ñuy fóonante de se taatu neen yaramu neen di def lu leen neex léegi ana jamra xeexul dara jamra xam nga lu muy xeex sénégalais yi œuvre sénégalais comme yow Euh, Diatta mademoiselle Diatta madame Diatta yow nga nga nga bind sa pièce théâtrale ñu teg ko mu am ñaari séquence wala ñetti séquence yu jaarul yoon Jamra jóg taxaw loolu moo dul yoon loolu mooy censuré Jamra buy xeex na def ni gars yi di def xam nga tey da ngay gis ay kuréel naan France dégage mais ñooñu dañuy xeex lépp lu France di liggéey mais tey yow boo que culture bi da nga koy censurer mais censurer kon novelas yi censurer euh, euh, kii euh, kii Nollywood parce que parce que ñun ñu ngi nekk si choc des cultures maanaam ñun suñu acteurs yi suñu créateurs yi dañoo nekk si aduna bi ñoom joué wuñ film pour ñun dañuy joué film pour pour France pour pour Nigéria pour Cameroun film yooyu ñu joué. Uh-huh. ak ah, duñ ko adapté suñu réalité ñoom ñu ngi ko adapté ci réalité standard mondial. adduna bi kon kon tey jii euh, aspect commercial bi la ñu gën a jox gëdd ko. mais bien sûr mais mais madame kaay ma wax la nag kaay ma wax la. la mhm. euh, euh, ñu waxante dëgg. nit ki munoo wax ne. yow say acteur bu ñu gisee film yu film yoo xam ne day day day day day day agressé suñu culture. Mm. alors que am na yeneen acteur internationaux ñoom ñu ngi gisee seen film seen dëkk indi ko fii réew. ñun ñu koy seetaan ak suñuy doom. mais loolu la Omar Te bañ ak say bi ñun du ñu nangu loolu du ñu nangu dañu bëgg ne euh, làq doom doomu jàmbur dóor sa doom yow sa propre doom làq doomu jàmbur loolu lañ ne Jamra waru ko def waaw dama je pense que dafa war a utiliser la balance maanaam dëgg et puis culture weesu ñu fu ñuy censurer la culture ñu ko weesu. kon daal yow jamono bu euh, ma la déggee ci ay wax nañ bàyyi création daal nañ bàyyi création. mais la création elle est libre. la création madame elle est libre l'interprétation est subjective ku mu neex la création est sacrée la le commentaire est libre madame. ku mu neex nga seetaan. non mais mais yow dama lay laaj yow tey boo taalul sa tele doo gis loo bëggul gis. soo taalul sa internet xale yi boo leen boo leen xañee. boo leen xañee seetaan sa télé ñoom ñu ngi seen téléphone di yore seen YouTube di dem seetaan film X. film X la ñuy seetaan. mi Mickey yi sax léegi ñu ngi ciy dugal lool te lool loolu. waaw film Mickey yi ñu ngi ciy def ay ay góor a góor di sëy. jigéen ak jigéen di sëy. mais loolu waa léegi ana Jamra taxaw di ko xeex mu ngi koy xeex. kan mu ngi ciy taxaw. Euh, euh, Jamra mu ngi koy xeex. kan Jamra kan la plainte foofu. Ah, est-ce que plainte na. est-ce que plainte waa Novelas wala waa waa Nollywood. ah non mais euh, en fait bëgg na daal ñu génnee chaîne yooyu. ci waaw mais non madame madame madame madame déglu ma wax la ma ne. Mhm. Euh, nga man dama bëgg. doone yàlla benn la. da nga koy appliquer partout dans le monde mais doone yàlla benn la fii boo demee Nigéria ñaar la fa. yàlla benn la. c'est c'est c'est une loi universelle. sooy censuré tu censures tout le monde ou bien tu laisses tout le monde. nga bàyyi leen bañ leen censurer. kon daal ñu kamaj lépp. kamaj lépp film novelas yeeg yooyu yëpp bu fi dugg ci réew mi bu ñu ko defee Omar te en phase avec eux suñ ko deful nag qu'on laisse les créateurs sénégalais s'exprimer à l'échelle mondiale. Abdoulaye Mamadou gisee ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf.